Waouh, waouh, septième combat Septième combat de la soirée De la soirée Septième combat Yaré, Babakar Thank waaw waaw waaw Thiatou Fass Fass ak Thiatou Yeumbeul Thiatou Fass Thiatou Yeumbeul Thiatou Fass sixième combat sixième combat sixième combat de la soirée ñaari caat la jël na avertissement Thiatou Fass jël na avertissement Thiatou Fass jóge ci victoire Thiatou Yeumbeul jóge ci victoire fii la woon digganteem ak Bébé Lambaye Thiatou Fass aussi jóge ci victoire fii la woon digganteem ak Gouye Gui bu bu Tivaouane Peulh boobu mooy sixième combat de la soirée la samedi 25 novembre 2023 ñu ngi à l'arène nationale le promoteur Abdoulaye Diakhaté à la tête de Tender Production organisée waaw waaw Thiatou Fass Thiatou Yeumbeul Caatu Fass Caatu Yëmbal waaw waaw waaw waaw combat bi dem na monsieur l'arbitre sifflé na génn na seen diggante Caatu Fass Caatu Yëmbal Caatu Fass Caatu Yëmbal combat bi dem na ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo ñu ngi lewtoo caatu Fass caatu yëmbal waaw waaw caatu Fass caatu yëmbal caatu Fass caatu yëmbal caatu yëmbal uti na ko attention roofoon nañu roofoon nañu waaw waaw roofoon nañu Thiatou Fass Thiatou Yeumbeul Thiatou Fass Thiatou Yeumbeul ñu ngi lew doo attention am na ngemb Thiatou Yeumbeul am na ngemb ñu ngi attention Thiatou Yeumbeul am na ngemb Thiatou Fass am na ngemb Thiatou Fass am na ngemb Caatu Faas am na ngemb Caatu Yëmbal am na Caatu Faas Caatu Yëmbal Caatu Faas Caatu Yëmbal attention face face à Thiatou Yeumbeul Thiatou Fass Fass Thiatou Fass Thiatou Thiatou Fass Thiatou Yeumbeul attention eh eh daan na ko waaw Thiatou Yeumbeul yee Thiatou Yeumbeul daan na ko waaw waaw waaw waaw Thiatou Yeumbeul daan na ko Thiatou Yeumbeul daan na ko Thiatou Yeumbeul daan na ko. Sa ko mel daan na ko waaw waaw. Thiaw Sarko daan na ko. ndeysaan Thiaw du ñu mbal daan na jël bu rëy. yow ma bi fu mu toll ndeysaan.